salaamaaleykum mbokku internet yi yéen ñiy seetaan seen plage ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal ci teewaay bi di ñu ngi gis vidéo yi commentaire yi lépp ci suuf ñu ngi koy gis di leen jaajafal yéen ñëpp tey rek ñu ñëwoon génnaat feneen àndoon ak comme ni ñu koy defee saa su nekk Sarata mu wàccoon sur le terrain gars yi wax seen avis par rapport ak soow Youssou Ndour bu bees bi nga xamante ne nii bi mu génnee ba léegi mu ngi fi dafay affaire yu doy waar yi tapasante bi gaaruwaale bi lu nekk ñu duggoon nag ci mbedd mi laaj askan wi lan moo ci seen xalaat ñenn ci askan wi ñu dem xoole ko ñëwaat. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum nuyooti naa leen ziyaare leen bëgg leen jox di leen warmaa di leen jox cër. ma wàccati rek si comme ni ma ko daan defee rek ànd a seen flash ma ànd ak teg Youssou Ndour si li mu woy xale yu góor nee nañ góor day luxus baa mu gaaw baa mu xamee ñii bañ na ñii nangu nañ xale yu góor yi nag sama gaay yi laa gën a gis ñu bëri lu ñuy kaa léegi ma doon bëgg a doxantu dugg si koñi si ruq-ruqaan yi ku si nekk sànni sa xalaat lëz loolu laa la indi lool xaama dugg si biir koñi faran fàcce ñu xool si Youssou Ndour bi lan moo fay bomb waaw kay ñaaf asalaamaaleykum soxna si maaleykum salaam ça va ça va noo tudd Mariama Mariama damaa dégg Youssou Ndour way benn way xale yu góor yi nee nañ moom la ñuy ñoom Youssou ñoom lay classe ndax ñee na ñi góor daa war a gaaw te góor ñi dañoo na yow loo gisee li Youssou Ndour wax ah, lu mu wax mun na nekk parce que ku nekk sa góor mais man franchement man loolu leeru ma parce que man sama góor dafa baax dafa baax dafa tabe yéene ma lu ne te loolu man gisuma ci dara. waaw mais Youssou Ndour lu mu wax laalo mooy looloo yoon sax mooy góor mooy góor laa la xam naa warut a nay quoi waaw mooy góor moom xam nga ah mooy dafa war a tabe waaw waaw waaw waaw mooy looloo yoon quoi mooy lu mu way laalax moom dëgg la quoi. góor moom daa war a gaaw mbaam mi ruxus dëgg rek la wax xale góor yi nay nañ torop nay nañ ba jaaxal ma man nañ nayee sax dama koo ragal. <laughs> beneen saa moom Sénégal yoo toll foo xam ne <laughs> góor yi joxeetuñ tamit xaalis bi tamit dañ koy dañ koy téye trop parce que koo laaj mu ne góor jigéen li ñuy laaj dafa bëri genre jigéen ñi aussi tamit beneen saa si ñoom la lu ñuy laaj baraan bi moo ëpp daal léegi. saa yu woyee kenn ku ci ne gis sa bopp waaye teewul ku ci nekk rek na nga na nga jël say matukaay rek ba mu mat du noonu góor day gaa gaaw baamu luxus ñenn ci góor ñi dañoo soxor ñenn ci góor ñi dañoo baax noonu la rek. kon yow daal gisoo sa nayu jëkkër. non non gisuma ko franchement moo tax ba ñëpp di ko estatu estatu ma ko waaw parce que man gisuma nayam. yaakaaroon ne ne Youssou Ndour poussé wul xale yi jigéen ñi di gën a yokk seen mbaraan na xaalis gi du dugg. non ah du question ay pour xale yi mooy gën a mooy yokk seen mbaraan sax mais xam nga tamit mooy nit tamit laa wax moment mooy soo ko bëggee soo ko bëggee mooy foog nga yërëm ko dimbale ko mooy defaral ko quoi waaw moment ah, mooy fa lay waxee. gis nga moom mooy waxul laa wax pour pour pousser xale yi mooy pour nu mbaraan ak loolu xamoon nit laa la wax moom soo ko bëggee xanaa noo def dimbale ko tey nii xanaa tey nii laa la wax yow sooy génn ak yow mooy benn saa ndey su tabaski jotee di nga ko jëndal di nga ko jëndal yére. en fait affaire yi demeewul noonu boo ko kenn gisee noonu ndax euh, loo gis la mbirum way la rek affaire yi yeete la ak at ak animé bégal fans yi la rek ak at bu bees bi day bégal fans yi la rek xam nga ndax moom daan na fi waye jigéen ñi daan na fi way góor ñi na ko ñëpp xamee noonu. léegi jigéen yow ku leen gis ni nga waxee est ce que yaakaaroon ne ne da ngeen sakkanal da ngeen di denc di sakkanal. non même pas ñun xaalis moom buñ ko amee dañuy joxe mais dëkk bi amul xaalis góor yi liggéeyatuñ taux de chômage bi ëpp ëpp ñun jeunes ay élèves kese lañ <laughs> ah, mais Youssou Ndour bu dee ba wéy loolu léegi ñun ñun moom xaw ma xamuñu fu ñuy jëlee xaalis bi de. yow élève nga. Ah, am nga gel. <laughs> man waaw <laughs> ah, na. yow sa gel dina la ñaan di ko may xaalis. man non xanaa ma jëndal ko cadeau rek. waa Adama est que ñëpp góor ñëpp ñoo nay. est-ce que yaakaaroon ne ne Youssou lu mu def nii est-ce que du yokku mbaraan du yokku mbaraan gi wala xale yu jigéen ñi tey jii téye seen saak dem di uti ji ndax ñu mun leen a jox. no mais loolu moom dëgg la xale jigéen ñi sax nag ñoo xaatul dara jamono ji moom gisoo xale bu jigéen bu toog moom dëgg neexul mais góor ñi ku nekk ak jigéen danga ko war a may mais góor ñi aw ma ci boppam seen catu làmb ñi la def seen loxo yi fii la këttee dégg est-ce que du yàq ay couple. bon non non du yàq couple parce que nay moom nay moom dafa am moom ñu nay dëggantaan. waaw dafa am ñu nay dëggantaan xaw ma nag momji am na ñoo xam ne moom je sais pas nay ñu mais daal nay nañ daal <laughs> ku nayul sax na ngaa nay <laughs> waaw kon ñoo gisandoo ah ñoo gisandoo askan wi loolu la ñuy wax ñii nee nañ góor dafa war a joxe xale jigéen moom comme chaque jour ah, comme fépp ñoom wii la wax joxe waaw parce que moo leen arrangé mais tamit na débat bo xamante ne nii dañ ciy ah, di ci tooñante ci statut surtout affaire yooyu ñaaxul tamit amaana ay couple yoo xamante ne nii ils sont immatures yu ci xuloo affaire parce que jaru ko yaakaar naa bi ngeen di bëggante yu waay bi génnagul woon waaye bi mu génneeg léegi ça fait même mois bu fekkee seen mbëggeel jiitu woon na loolu te mu nekk mbëggeel gu dëgg loolu du def problème benn yoon seen diggante amaana da ngeen ci tooñante parce que comme ni ko gaar yi waxee xale yu góor yi dañu nay trop xale yu góor yi dañu nay trop nay ak gaar yi koy jaawale fi mu ne nii ci kaa bi gaar yi jaawale nay ak leneen parce que ku amul mënul nay comme ni ko gaa yi waxee bukki ñu ne koo indil ku nay dafa dem jëli ku amul mais loolu leneen la ku nayul pour man mënul am parce que ku nay mooy ku am ta nanguwul def mais bu fekkee amoo mënoo def comme li olof yi di wax naan nit mun nga wax loo mënul mais bu def jotee loo mën rek ngay def parce que mun nga toog fii ne am naa lii am naa lii mais ci làmmiñ la am buñ ne laa indi ko da xin xaan yi comme ni koy faral di waxee nay amul ci ñi amul parce que am na ñu bëri ñoo xam ne nii ñooy gis seen bopp ci son bi ñooy wax ci du pas du ma ne saaga mais ñooy sànni loxo Youssou Ndour dafa woy ba amatul lu mu woy dafa lii dafa lii dafa lii bëgg a léegi wax lii comme wax na lépp wax lii mais daan na wax yeneen mu leen arrangé am ñoo xam ne da leen doon dérangé li ñu naan le bonheur des uns fait le malheur des autres da ci kontaan tey ñu merci tey nag. ñi nayul peut-être ñoom ñëw ci dal tey jii son bi bi muy génn xam nga ne ku mu fekkoon nga ànd sa soxna bijouterie di ko jëndal or bu son bi génnee da nga koy xool ree mu xool la ree mais ku mu fekk sa jabar di la laaj dépense yoroo ko jigéen ñi tamit surtout ñu ci comprendre bu baax a baax yaakaar naa ne góor boo sëyal ba am ak moom njaboot même amoo leen jaboot ak lépp mais yow rek chargé nga ci moom te bi mu lay jël tamit amu ci woon intention pour nga ñëw mu lay xiifal wala mu lay ñàkkal loo xam ne nii amoon nga ko sa kër yaa ak sa papa kon ñu jàppalante ci bu baax di dawal compréhension ci ci li ma foog ne moo gën quoi ku nekk comprendre sa morom xam ne du xaalis jamono Sénégal fii dañoo gis mbëggeel xaalis la bi amaana Youssou Ndour ci genre business yooyu lay inspiré wu rek di waay gaay ah parce que ci li nga nit ci li mu gën a bëgg nga koy li, ndàng-ndàng fii bëggante bi Amga lañ ko jàppee cheveux naturel fii lii fii lii fii même sëy bi ci kër yi am nga yaay am nga papa tante bàjjan tonton bu la yar kooku famille ngeen war amat famille nga war a yaraat famille am loolu dafay ci niñ ko bëgg ñu ci baaxal bu baax baax mbëggeel du xaalis mbëggeel lu ñuy yëg la lu ñuy dund la mais buñ ko bëggee jàppee xaar ba tax ñu ñuy woyal way yi ñu ñuy xuloo ci mbedd mi ñenn ci xale yu góor yi nee nañ nay ñu nee nañ jigéen nañ ko war a defal ok ñoom foofu lañ toll mais tey jii pour man nit suy wax ak askan wi day dënd moom position am wax li nga xamante ne nii mën na nekk kaaw ñëpp ah li probable mais yow bul mën a defal sa ki nga nekkal rek nga ne ñëpp dañu war a defal parce que li nga mën loolu du caageenu war a def wala lii caageenu mën-mën la foofu mën-mën moo fay feeñ nekkul leneen moo fay feeñ yow mën nga defal ki mën benn comme ñu ngi koy wax naan Youssou Ndour dafa way lii way la contraire non ki mën benn bàyyi koog bennam ki mën ñaar bàyyi koog ñaaram ki mën a may jabaram oto nag ko may ki mën a may jabaram kër mu may ko ki mën a may jabaram 1000 francs 100 francs ki mënul may jabaram dara mën koo wax dama laa bëgg man pour man li bon noonu ki lay may xaalis te wan la mbëggeel boo muusee da nga koy bàyyi ki lay wan mbëggeel te joxu la dërëm boo muusee da nga koy jàpp mais fii nag comme li ñuy wax rek moo manque de moyen baaxul pauvre pauvre baaxul pauvre boo ko defee moo lay dugal ci business yu bëri ah gis nañ fi xale yu jigéen yoo xamante ne nii dañuy nekk ak seen copain lu yàgg lu yàgg lu yàgg mu nekk dëgg depuis bas âge ñuy ànd mais dañuy jékki-jékki am benn problème bu ndaw problème bi lu ci ëpp li koy causé mooy xaalis soit famille bi ërtal la pour nga nekk ko am xaalis parce que ñoom ñoo pauvre seen pauvreté nag moo lay yàqalaale yow tamit parce que kooku noonu nga bàyyi suba xamoo lu muy doon yi ki ngay dal tamit liñ naan xaalis bu la taxee dugg ci këru almadi yi boo fa gisul mbëggeel dina xat ci yow comme cent mètres niveau xale yu jigéen yi war nañ ci baaxel bu baax a baax a baax xam ne mbëggeel kese mooy dëgg am na tamit yenn jigéen vraiment yu compréhensive yoo xamante ne nii ñoom toujours ñoo ci sa jëkkër ñoo ñoo ngi dund mbëggeel bi comme ni eh, di muñalante parce que mbëggeel mu ñëwante moo jiitu ci ñaari nit fii mbëggeel gu bees rek moo neex booy soog a bëgg jigéen soit nga koy soog a takk gàttante day am mais boo leen demee ba ci kanam tuur yi ngor rek moo fay des nekkatul ay xaas mooy dox ay jantal mooy dox ay lépp mooy dox ay taar dafay jeex xaas dafay jeex comme ni ma koy waxee saa su nekk gisoon nañ fi ku am ñàkk vice versa ku ñàkk am noonu la fi demee saa su nekk moo am ñeneen ci askan bi ñoo xam ne dañ naan Youssou Ndour moo a nay ñëpp a nay ñëpp mais man Youssou Ndour gisuma nayam que bu dee dañu yaakaar ne concert gratuit loolu noonu ay du Youssou Ndour moo koy tëgg amaana concert gratuit yi mu tëgg yëpp benn société moo koy engagé mu tëgg concert gratuit mais pourquoi Youssou Ndour di jël concert am di la ko may doo papam doo yaayam doo doomam doo jabaram ndayam da koy laaj jabaram wala léebam mais Sénégal gaaw nañ trop ci jugé nit boo xamante ne ñii sekkuñu jox aduna bi dafa ñoo xam ne da ngeen sekk jox ngay liggéey di leen jox am ñoo xam ne nii da ngeen sekk ñu lay jox ñuy liggéey di la jox ku ci mel ni nga dem ba nekk mag sa doom di liggéey moo la war di jox ci logique ñun suñu logique africain fii li ñu xam suñuy tradition loolu lay bëgg mais Youssou Ndour vraiment du sa papa du sa ya du sa dara buy tëgg concert pour bégal la limu mu mën pour may la mooy ambiance bi soirée bi ya, et tout nga dagg sa biir dem mais pas nay na nay na gis nañ fi ñoo xamante ne nii dañuy génn ci biti xale bu ñu dajal dina la bon te bu ñu duggee seen kër may ñu seen doom jàmm may ñu seen jabar jàmm ñu génn nag dañuy jàmm ak waa mbedd mi yëpp ya, caaxaar na lolu moy mooy li bon mais du nit li muy mu jël ko di la ci may parce que ñuy wax loolu yëpp ya, ku ci nekk ci ñoom am na bu muy def liggéeyul may patron am liggéeyul fay ko weer bu dee maye ko dañuy faj ay soxla yusundur Youssou Ndour tamit nit la ah day faj ay soxlaam peut être kat nag moo leen ëpp xaalis ay soxlaam moo ëpp seen i soxla et tout nit la. xale yu yi tamit ñu baax xel bu baax a baax Youssou Ndour moment bu baax bi la bu pour génne son bi de. janvier novembre bi fin novembre bi laal décembre bi cadeau yi di dugub fête de Noël yi xale tamit moo leen wax encore une fois ñu baax ci bu baax a baax a baax. cotisation bi ak bañ ñu ne la da nay bu taxee nga fi engagé loo xamante ne nii mënoo ko sa décembre mën na neex mais sa janvier na compliqué trop trop ñu bàyyi xel xale yu jigéen yi tamit ku ci ku ci génn ak sa waay bañ mu dem nu ngu sin nga comprendre ko bu baax a baax lu la jox ngeen doyloo ko bisu feet yi xaw ma nu muy demee boo leen amee ataaya ngeen ataaya boo leen amee meew ngeen meew boo leen amul ataaya amoo leen meew ngeen kenkeli ba naan enjoy seen bëggeel mu jeex mais ku ci dugg ci loo mënul waaw kon bu defee ñu déggee ko ni ñu ko waxee noonu ku ko ci mën a appliquer nga appliquer ko ci ku mu arrangé wul ku mën bay def tamit bu la dara teree def defal parce que jigéen boo nekkee moom war nga koo dimbale ci loo ko ëppale ñi ñuy waxal rek amaana mooy ñi nga xamante ne nii amuñu lu ñu dimbalante mais ku ci am koo nekkal bëgg ko loo ko yéene defal ko ko ah parce que mérité na lépp comme Sénégal da ngay dégg cas yu bëri ñuy expliquer ay 500000 bëri na 1 million bëri na 2 million mais pour man ki nga bëgg 20 millions. ak xeeb sax mun na nekk quoi ci kaw mu woon la mbëggeel bi nga xam ne jàpp nga ne yow mooy mbëggeel ñu bàyyi ci xel bu baax bu baax ñëw ma pour wax kenn bul def wala xale bu jigéen benn bul ñaan ku am sa soxla boo ko bëggee ñaan ñaan ko parce que affaire yooyu ci nit la nekk am na ñoo xam ne mën nañ ñaan ñi si des ñu ñaan am na ñoo xamante ne nii bu ñu naree ñaan tëdd ak xiif am na ñoo xamante ne nii mën nañoo lekk ba suur teewul dañuy ñaan parce que ay ñaankat yàlla deful ñaankat ñu continuer di wéy ak seen ngor rek xam ne yàlla dina ñëw xëcc bu dagul te tamit gars ñu jàpp ci bu baax baax di jàppale xale yu jigéen yi ci li ñu leen ëppale waaye bi bu ko kenn jàppee sens bu bon nag ay mbaraan moo tax dañu bëgg xale yu jigéen yi di ñaan jàpp ma loolu dañ ko waaye pour ñu fecc ko mun nañ ko jàppee fecc tout court ku ciy mbalagante nga mbalagante ci mais pas ñuy yeggante ci defante parce que yaakaar naa ne mbëggeel du defalante kese mbëggeel ay xol la yuy composé seen biir surtout parce que bu doon ay jëmm la doo gis ku gàtt di sëy ku njool ku njool di ànd ak ku gàtt ku njool di ànd ak ku xees mbëggeel amul couleur amul race amul dara maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di leen siyaar di leen jaajëfal ci teewaay bi ñu ci kontaan maa ngi leen di bëggee ñu ci mer tamit maa ngi leen di bëggee li ñu wax bu fekkee arrangé na la neex na la nga bës jëm bu fekkee abonné goo nga abonné ah abonnement bi amul fay gratuite la bu fekkee tamit lii la ñu wax neexu la nga def dislike après nga saaga bu la neexee ñoo ngi leen di si jaajëfal leen ñëpp parce que tamit faa ñu baa ci xel peut-être que su ñuy def benn affaire ñëpp di ko xool naan apprécier apprécier mën na bañ a intéressant mais faaw ñii di bëgg ñii di bañ bu ñëpp xëyandee bëgg jigul kenn kuy saaga ci commentaire rek ñëpp ñu ngi leen di xaar di leen jaajëfal tamit ci public bi ngeen bokk bañuñu comme ni ñu koy waxee ku saaga ku seetaanul di saaga la ñu bañ boo seetaanee contenu bi pare li ñu wax neexul loolu la neex defal yaa tey jaajëf